korumal pulo ak pilo korumal pulo ak pilo korumal pulo ak pilo korumal pulo ak pilo ana tur gi dem bi taxawalu ci koñ bi ay kontaan naa ci yow naa ngi leen di def. nga dalal ma yaakaar ma xam nga. bon ma rukkee rukkaatee yooyu. bu la neexoon nga dama sa doom yaa ngi fii ma la defal dara. ñoo fari ma nga ñëwee ba tey yaa ngi may jàppale sama liggéey. sama doom bëri na sama doom bëri na. puusal puusal lii puusal. waaw waaw papa dootoo waaye. puusal. bëgg nga jëndal loolu loolu kii moom xam naa ne bu amoon woon Ghana a def wàllu bëgg nga jëndal loolu loolu. sama xarit la nag moo may jàppale ci kër gi nag. suuf suuf ah. bi. waaw ah, bi nag. waaw ah. am xam nga rek mag ñi moom nekk. am na xale yoo xam ne tamit neexu ñoo nekkal. kii ci dara bu ko neexoon ne ma sa doom yaa ngi ne maa xawaa yooyu bu jógee sangu na dem buntu noonu. Hmm. moo may jàppale ci liggéey bi si kër gi. Hmm. ah billaay da ngaa xamul li ma xam. ah da ngaa xamul li ma xam rek waaye boo xamoon li ma xam lii de la olof di wax naan dëmb ay la ba noppi jaay la la. ay papa baal yàq na tamit am na ñoo xam ne nii dañuy màtt di ëpp. Ah. te loolu gis naa ko fi fii li ma fi gis lépp mënu ma koo wax. ay daal sama xarit la. waaw ba mu duggee ci kër gi ba tey macha allah mu ngi may toppatoo sama nijaay fu ma neex laay dem. waaw yow maa ngi ne dem keroog ay jàng. Ah. gis nga bi ma fi génne ay 5 heures laa fi génne bàyyi ko sama ah, bi lu may jàppale baax bu ko neexoon du ko ci fekk. <laughs> moom ah. yëpp <laughs> ay yàlla. papa ma. yow loo ma bàyyil ma toppatoo wala. mun waxee xeesal yu mooy yi mel na kuy sagoo mbante lu dugg mën nañ cee génn ay yow moom toogal fii yow. wala moo tax yow ak Aida jubóo man dafa am lu ma xam ba noppi toog ci. boobu nag xam nga ci dara toog sax. toog ñu waxtaan nag biir. yaa yooyu daan de ci kanam dégg nga. waaw ci kanam waaw man ak yow mënuñoo bokk jotaay. kii nit ku bon la. ma ne mere naa la laala mere naa la. matul kii. Ah. yow sa noppi gii. noppi sama xarit bu fi ñëw rek indil ko problème rek kii yàgg kii bi mu fi ñëwee gis nga ko moom ay jàppale ci liggéeyu kër gi sa yére sax moo koy fóot. kii li muy manigancé yow xamoo ko mami gaa sow dara bàyyi jàmbur. kii dina nangu sa jëkkër. dina mel ñaaw nga toog bëccëg di jooy. sa man moom xam nga ne man mag muy jooy sax man mënu ma koo nax gone guy jooy sax mënu ma koo nax waxatuma la. kii daal du ma du ma def dara. joo du ma loo yow yaa war a bàyyi. jugal jugal may ma jugal may ma ma tëdd yónnee ma ngegenaay ma tëdd. sama ngegenaay comme xale bu ma am nga dàq. bilaay li ma la géntal gisoo ko sax. jooy bëccëg man moom talumaa nax mag gone guy jooy sax duma ko nax waxatuma laal mag di jooy de gan gi ko moytuwul mu mel na kuy sangoo mbandi xeesala mu mën ka koo ni da ngay wax di wax di wax di ba jant bi sopp ko wax eh yow bul daaj bi amul pa amul dara yéen sama waa la yooyu nekkul bul waxee su may wax bul wax. père doo leen ma def li ngeen ma def ba pare bëgg ma yëngal. kan nag yéen kay da ngeen a laal ko ba xool di tay. déet man moom soxla jotuma ko ba di ko laal. maal la maal mooy tooy sama àdduna moom ngeen jël. ah waaye nag wax ngeen naan da ngeen koy jéem a maye. yow de lan doyee booy bu ndaw yow lan ngay doyee booy bu ndaw. da ngay wax ak ñi ko jël man sama yoon nekk. yow xoolal du ma waxtaan ngay wax. eh eh kii lu def nii eh. booy dama amee asma de. xam nga keroog fii laa ñëw. nga may jéem a tëwëri naa ay bongo beeg mooy booy waaye waaye keroog dañ ko dóoroon. wàññil tuuti yaa may gaañ. Eh, déglu ma du ma wax booy dama ma wax ngay wax looy wax. booy dama am bu ngeen nee wax looy wax yow. booy bi su fi ñëwatee di nga ko xool catu bët sax est ce que. ban booy la damaa xam kan lañ. Eh, yaa ko gën a. kuy Dabs. dofoo ah d' abord bi la bi may fii. pilot moom laa waroon a fekk ci gaale moom dama koy rendi. booy wàññil tuuti. te doon noppi. <laughs> ah nga ngay waxal wax. moom mu booy booy dañuy jéem a jaay bëgg jigéen. ah loolu ko bëgg jigéen ni mu mel yow. yow booy a nga def nii man dee naa bu yàgg nag mooy doogale rek booy booy damaa tàbbe. man neexu jigéen moom yow doo xam ni muy sax. booy booy te suul bi yaa yow ba mu dëgg. takkaale nga ko de booy booy pour seet a takkaale. moom naa fee fekk kilo. booy man noppi naa kilo laa ko bëggoon nga sol. booy man noppi naa fi waaye sa ngor yaa ngi fi yow laa koy jox. booy man noppi